Euh, beneen bi gën a doon bidaa nag moom mooy bu deux heures du matin bi bi suñu mbokk yi def <laughs> boobu moom mënee su ko layal ndaxte jaamu yàlla goo xam dañ ko wutal heure wutal ko temps wutal ko mbooloo maanaam li ma wax mooy ñi koy def ñëpp nañ dem màggali nañ dem gàmmo ji mm-hmm. buñ jàppee ni gàmmo bidaa waaw magal bidaa la rek bay ba ñu bàyyi lii mais dëgg la ndax benn la parce que heure lañ ko wutal la ngay ba du matin ngeen wut imam mu jiitu te da ngeen ko wutal ay jamono ndax ci fukki fan yi ngeen ko wutal la du matin imam bi jiite bu di ñaan ñaan ya bu jëree jooy mu jooy nam def ko tàllali ba pare nit ñi di xaar Euh, waa ji léegi moom ab ay ree ma gën a def euh, bon feeñ na ni moom ku ab ku malhonnête la ku dul wax kuy sosal saxaaba la du wax dëgg euh, lu mu xam moom xamal la la koy njëriñ si diine ji lu du ab lëntal ak caaxaan ak tappale gis nañ ay xadis yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa si jëmmi boppam dafa génn jiite saxaaba yi guddi te loolu si mujjantal weeru koor gi la si dix derniers guddi yi jël na si ñetti guddi yu toll teg la ñetti guddi yu toll vingt troisième vingt cinquième vingt septième gudd yu toll di jiite saxaaba yi loolu daa am lu ko waral ba sax si version Tirmidi bi Abu Dhar lan la wax sumna maa rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa lam yusalli bina xatta baqiya sab'un min ash-shahr mu ne woor nañ ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génnul julli ak ñun naafila taraweex ba mu dess ñett ñett manam ñett ñett ñett ñett fan si si koor gi loolu juróom manam ma ngi naan ñett manam juróom ñaari fan ba mu des juróom ñaari fan si koor gi motax 23e troisième jour guddi bi la dal di genn 23e guddi bi la dal di genn parce que 10 dernière guddi dafa am ngëneel foofu la laylatul qadri nekk surtout guddi yu toli motax moo guddi yu toli yi la yonent do ngeen yonent bi 10 dernière guddi bu jotee da doon def ixtikaaf si jàq ji sax foofu lay sax dafa génn lu dul loo xam ne mënut a ñàkk saxaaba yi loolu loolu si loolu leen doon xërtal subhaanallah donc dix dernier guddi dañuy gën a góorgóorlu dix dernier guddi moo tax yonent bi si dix dernier guddi si boppam la génn dem defi julli qiyaamul layl ak saxaaba yi si jàq ji si guddi tool ya <laughs> léegi yow nga ne loolu ñu koo layal euh, beneen bi mooy ab lëntal loo xam ne mën ne dañ ko uttal ab waxtu loolu du dëgg bu dee jamono bi moom sax na si ay xadis te tënkuñu ko si loolu moo tax Omar ibn Xattaab bu ñëwee ba tënkuñu ko si dix dernier guddi dix dernier guddi dañ si war a gën a gën a farlu pour wër euh, maanaam li nga xam ne mooy laylatul qadr man qaama laylatul qadr imaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqaddama min zambik taxawee laylatul qadr ànd ak gëm yàlla ak yaakaar rafetal ko yaakaar euh, pay yàlla bi yàlla jéggal la loo jiital si ay bàkkaar donc moo tax laylatul qadr bi que dix dernière guddi yu tool yi la nekk foofu lañ koy gën a gëstu mais tënkuwuñ naafila si dix dernière jours yi muhim donc xiyaam layl dañ si gën a góorgóorlu foofu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme ko comme nu ko defee euh, léegi jamono bi sax na si xadis waxtu bi tënkuñu ko si waxtu mënaan deux heures kii dayaa du wax dëgg man mi sax Sénégal <laughs> gis naa fa mbokk yoo xam ne minuwi lañ commencé génn ay minuwi demi minuwi et demi rek tambalé nak ñen ñi 1 heure ñen ñi 1 heure demi ñen ñi 2 heure donc ñu ko ci waxtu waxu del del wax deug subhanallah <laughs> lu nga xamne mom moy julli guddi mom bo xasse ba julli ge ba fajar temps bob yeup guddi boobu am nga ko pour lan pour def say nafile say qiyamul layl et cetera bu la nexé nga dem teddi après gué ba nalaw ba guddi bi xaju guddi bi wala nelaw ba ci guddi bi heure bu la nex nga jug julli lolou ñu tahajjud yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da ka doon def vraiment waxo fi dara donc mbokk yi utaluñ ko heure bu nga wax naan deux heure lay am de c'est pas vrai ñom ci seen jaxé sa ça dépend loolu dañoo joxante rendez-vous ngir dajale defee ko fa yaronte sallallahu alayhi wasallam dafa dem euh jiite sahaba yi guddi euh, ba xaju guddi Euh, benn bi ba daf leen jiite guddi bi yëpp benn bi daf leen jiite ba première ceeru ceeru guddi bi jeex donc ku nekk selon sa convenance heure boobu noonu fixé ko euh, wax si ay wax ni fort deux heures du matin lay doon déjà day changé selon jàkk yi selon nit ki ñuy organiser woo rek selon lu selon lu yomb si ñoom lu jàppandi si ñoom mbooloo bi ba mbooloo justement jaamu yàlla mbooloo la yonent bi ak mbooloo la ko def ci période bi dix dernier guddi yi euh, lañ ci gëna gorgul parce que yaronte bi sallallahu alayhi wasallam hadith yu ñew ci wër lu nga xamne mom moy euh laylatul qadr ak jëf yonentou sallallahu alayhi wasallam mom nga xamne ci dix dernier guddi la lako la def ak sahaba yi comme niñ ko gisé ci hadith yi tout ça dem émission télé pour wax li yeb ludul deug sosal yaronte bi sosal sahaba yi fen ci l'islam li pour lan allahul musta'an yalla jubal ñu di dem bay saboté bay def ay procès d'intention ki di naan ay ñi di xaal joyi et cetera ñi nan di yëkëti say loxo yëkëti loxo saxaba ñoko doon def saxaba am ñam buñ doon jang alcorane dañuy joy ba da ngay am problème pour pour comprendre abdou abou bakr da doon joy ba buñ signaler yoy yonent bi parce que jité bi ya ne abou bakr mu jité abou bakr bi jaay bi jité day joy rek yonent bi ne dédé na abou bakr jité loolu dafay procédé nit ki di jàng alxuraan xolam tooy loolu kay macha allah lu baax la peut-être yow da nga am problème booy jàng alxuraan sa xol di tooy ngay jooy mais loolu noonu lu baax la bul di nit yi seen pro di leen defal problème de tension gi critiquer loolu di saboter loolu. le fekk ñuy wax amin bu imaam bi ñaanee ñoom bi dañ doon witr xunutu witr dañ si doon ñaan. dañ si doon def xunuut witr dañ si doon def xunuut te saa yu waxe yu ñaanee ñeneen yi dañuy wax amin moo xam si jamono yeneen bi la bu doon xunuut dañuy wax amin saxaaba yi bu doon xunuut witr chaque fois dañ doon xunuut witr te dañ doon wax amin loolu sunna la bil bil ijmaa luñ sopp la yëkkati loxo bi luñ sopp la tamit lii yëpp saxaaba yi doon def nga ñëw tele di ko critiquer nga ñëw tele di ko critiquer di saboter loolu eh, loo xam ne saxaaba dañ ko doon def ñëw woowee ko bidaa di ko tudd biddaa xasana tout ça pour lay la ay caaxaan loolu moom lañ koy defal vidéo spéciale seen naafile du jour yi surtout seen téere boobu kurratul euh, euh, ayni bu Sëriñ Suhaybu Mbàkke ba euh, loolu dinañ si ñëw ndax biddaa téere boobu lu si nekk si biddaa moom kenn xam lu mu doon naam wallahu aalam dinañ yam fii si jotaay bi ba ba beneen vidéo jërë ngeen jëf